asalaamaaleykum chers internautes asalaamaaleykum yow may déglu video bi nag ñi ngi ko jagleel ñi nga xam ne dañoo tabax seen kër ba noppi bëgg ci liggéey xaalis maanaam ñi nga xam ne dañoo bëgg jël seen kër joxe ko en location yow laay waxal yow mi nga xam ne loolu dafa la intéressé déglu ma ba jusqu'à la fin de cette vidéo ba video bi jeex nga mën a xam opportunité yi ici à MTM dañoo nekk agence bi xam ne bokk na suñuy fort mooy ne képp ki nga xam ne da ngaa am kër bee xam ne da koy loué boo ñëwee agence MTM nañ la ko gérer la moo tax agence MTM ndax agence MTM dafa am norme yee xam ne dañ koy respecté xam nga ne ku nekk sa kër boo ko tabaxee bëgg koo loué il faut nga am ci ñaari B lu ñuy wax ñaari B ABC B benn bi mooy il faut nga am ci bët benn bi nga am ci baat il faut nga am ci bët mooy. ku ne xam na ne boo tabaxee sa kër ba pare joxe ko location ñu bëri li ñuy jooy lan la yàq na sama kër toj na karo yi daj na sama bunt kër gi salte na doog a génn loolu nga ciy dégg loolu nag bu dee da nga am bët loolu mën naa ñàkk ndax ku ne xam na ne kër boo koy luwee yow agence bi koy gérer waroo rek ne nekk service de recouvrement xam ngeen ne dafa am li ñuy wax service de recouvrement maanaam ñu ñëw weer jot nga encaissé sa xaalis dem sa yoon pour pourtant de ki la jox kër gi ma nga à l'extérieur ki la jox kër gi amul jot mën na ko recouvrement mais lan mooy différence bi ici à MTM ñun soo ñu dénkee kër dañ ciy am bët mooy dañuy dem de temps en temps waxuma la euh, recouvrement bi mais di xool ndax kër gi est-ce que ki ñu ko loué mi ngi koy gérer normalement benn mooy dañ ciy am baat am baat bi weesul mooy ki nga koy jox dénk ko ne ko bu fa yar xar bu fa yari ginaar bul toj bul bënn bul def dara lépp def ko ci biir tëgg ko ci biir contrat bi nga xam ne moo leen boole lii mooy ñaar yi nga xam ne dafa am MTM kon yow may déglu boo bëggee sa kër mucc ayib boo bëggee bañ a am lu la metti sa biir kër bi nga xam joxal jegeel MTM dañ koy def li ñuy wax gérance location boo ci bëggee lu la leer numéro baa ngi ci suuf bi ci njëkk mooy vingt 366 cinquante 51 wala boog nga wootee numéro commercial bi dix deux 78 522 65 cinq am na suñu site internet ñu ngi ci TikTok Instagram ak YouTube ak Twitter di la ñaan nag nga abonné wu te topp site bi te nga partagé vidéo bi Sénégalais yépp yi nga xam ne investissement moo leen di ñor ñu mën see jot di la ñaanal yàlla yàlla ñoral sa investissement merci beaucoup.